kan la feebaru Ebola mën a dal nit ñuy laalante ak ñi amee feebaru ébola bokk na ci njaboot gi waa kër gi ak docteur yi ak it nit ñuy laal mala yi ci àll bi bokk na ci njugub yi ak golo yi mbaa ñam yu njugub lekk màtt màtt njugub ndax nit mën naa am Ebola suy dawal kaar déet ndax nit mën naa am Ebola su solee ab casque déedéet te jàppal ni su nu amee xibaar bu dëggu ànd ak suñu docteur yi ñu mën a aar suñu bopp ci Ebola